ay fan yu néew ci gannaaw gisoon nañ fi li nga xamante ni da ameloon nañ ko fi muy ay campagne électorale yi nga xamante ni ci wàllum élection local euh, je veux dire que donc mu mel ni 23 janvier bi ñu génn euh, di dimanche bi passé bi weesu euh, avant boobee ñu amatul jàngat boo xamante ni moo ngi ko fi doon amal toog fekk nga xamante ni du ñu ci plateau bi muy El Hadji Pape mu mel ni defoon nañ fi ab taxab taxaw seetlu bu baax a baax ci wàllu li nga xamante ni moo di campagne waaye tamit ginnaaw vote bi daanaka naka la ñu war a voté li demee li ni mel yépp moo mel ni amoon nañ ci euh, jotaay bu yaatu yaatu tey nag mbokk yu mel ni dañuy amaat beneen taxaw seetlu ginnaaw euh, li nga xam ni moo di vote euh, élection locale yi muy gox-goxaat yi duñ ci sori dañuy bàyyi El Hadj Pape Thiam bu ko defee rek ñu daal di ñëw ci li nga xam ni loolu la ñu war a a waxtaanee bu baax a baax El Hadj Pape nuyu nañ la beneen yoon. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax a baax sañ sëñ Mountakha di nuyu tamit sa internet yi nga xamante ne bi en réalité ñoom ñu ngi suivre télévision bi di mm-hmm. jàmm ji info. Mm-hmm. di nuyu tamit peuple sénégalais bi. waaye nag kilifa diine ak aada yëpp ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. mais di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que man aussi dama perte suma benn frère boo xamante ne bii otation yi moo ko moo ko maas. Oh vraiment ñu ngi koy koy jaale mu ngi tudd Serigne Saliou Fall. moom ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla xaree aljana démb ba léegi ci dëj bi la ñu nekkoon oh donc maa ngi ko koy jaale di ko jaalee tamit population bu ginnaaw raay yëpp jërë ngeen jëf tabarkàlla ñu à travers Euh, ci suñuy kàddu mboolem personnel u jàmm ji info tam di ko jaalewaat suñu mbokk moom itam euh, di jël njaal mi yëpp di ko teg ci euh, ki nga xam ne mooy El Hadj Pape Thiam di ñaan rek suñu borom tam xaare ko ci àlgën yi gën a kawe ak mboolem ñi mu fa fekk ñëpp El Hadj Pape mu mel ni dañuy am taxaw seetlu taxaw seetlu bu doy waar sax boo xamante ni kii local yi gox goxaat yi mu mel ni nekk na loo xam ni metti woon na lool ci njëlbeen waaye ginnaaw li nga xam ne moo di vote yi gis nañ fi yi nga li nga xamante ni xàmmewuñ ko woon wala yàgg du du gaaw ñu koy seetlu ci xar-xamu Sénégal mooy li nga xamante ni euh, diggante Benno Bokk Yaakaar ak ki nga xamante moo di Yewwi Askan Wi ni tendance bi ñoom ñaar mm. euh, mu nekk loo xamante ni euh, daanaka li nga xamante ni moo di Yewwi Askan Wi kenn xaaree ko woon fi nga xamante ni moo di surprise bi am naka nga jàngatee li ni mel waaw <coughs> maa ngi jégalu nag mm-hmm. parce que jamono bi yëpp dama tooy. xam naa ne coono campagne bi moo ñu jàpp moo ñu moo ñu bàyyeegul quoi. mais ñu ngi ciy sant yàlla c'est-à-dire que njàngat bi. dafa àtte boppam xam nga jarul yenn experts yi jarul politologue yi jarul nit ñi di ci di ci attardé wu cest dire que urne yi moo définir situation bi xew ci Sénégal lu ñu foogul woon wax nga ko mu nekk nag mbetteel surprise mais surprise la ci ñenn ñi mais d'autre part du surprise ci ñeneen ñi parce que nag olof yi dañuy wax ne euh, lii raam ci ñag bi lii raam mhm. buñ ko arrêté wul rek boo te ci boo moytuwul ci ñag ba la jëm te bu fa jëmee bu fa amee kër aussi tamit dina dina jur ay déception yoo xamante ne ak ay surprise yoo xamante ne bi lii rek lay jur donc tey nga wax ci wàllu Benno Bokk Yaakaar wax aussi ci wàllu Yewwi Askan Wi man damay wax ne euh, peuple sénégalais bi d'abord avant Benno avant Yewwi c'est le peuple sénégalais d'abord peuple boobu nag Sëñ Mountakha tey dañu am loo xamante ne bii dañ ko yàgg guux ci seen ay dënn tey loolu moo indi frustration bi loolu moo indi inégalité bi te inégalité fu mu am day dafay créer ce qu'on appelle la pauvreté xam nga tey yow mi moom euh, jàmm ji info man may liggéey jàmm ji info ngay liggéey jàmm ji info bi di liggéey jàmm ji nga def affaire de favoritisme affaire de inégalité nga favoriser euh, caméraman bi léger Pape Thiam El Hadj Pape mi nga léger nag moom bu yàggee dootul gisati boppam ndax dafay créer ay pauvreté ci ci ci domaine am lim fi waroon am amaana yow di nga ko xeeb ba du ko amati ndax li mu waroon am yëpp yaa ngi koy jël di ko jox benn nit donc pauvreté boobu mooy créer ce qu'on appelle la frustration waaw te bu frustration amee sanction dina am donc mooy lima ma la bëgg ne la euh, état du Sénégal dafa seetaan ay doomam ci lu baree baree bari sëñ Mountakha xam nga li ci njëkk mooy bu ñu arriéré cassette bi ci ginnaaw tuuti rek coowul foncier dafa bëri woon Sénégal da gis nit koo xamante ne bii day góorlu ñafe laay fam yépp lu mu am mu ngi épargner lu mu am mu ngi épargner ñu ne ko kat demal Tiwaawan pël wala kuunun wala ñàkkurab euh, wala nangam nga dem jënd fa terrain mu dajale la mu am mu néew ak mu bari ak njabootam pour am fu mu suturlu ak njabootam yaa a plus de deux mille et quelque pères de famille yoo xamante ne bii tey dañoo dajal li amoon def ko ca suuf sa ngir am lu ñu dëkkee ak seen njaboot ngir am sutura état du Sénégal seetaan na sàggan na ba ay doomam tey ñoom ñëpp seeni rongoñ dal na seen ay dënn loolu nag mu nekk benn première frustration boo xamante ne bii peuple sénégalais bi ñu ngi suivre loolu te dencal nañ ko état te yëgu ko beneen bi mooy bu ñu ci demee ba ci biir nga xam ne li jur frustration moo indi tey vote sanction bi am ni tey. kon loo ko jàppee vote sanction nga ko jàppee. non vote sanction bu garaaw a garaaw la. alerte bu garaaw lañ jox président de la république message bu fort lañu lañu lañu lañu lancé président de la république pour wax ko ne am na foo xam ne bu ñu fi yeggee c'est le peuple qui décide c'est le peuple qui est souverain. parce que peuple sénégalais bi nag dafa nekk peuple bu mature léegi. Mhm. te aussi lu ci nit di def na nga ko xool xam ne ëllëg du añ du reer. mais lu mat sedd sédd la. d'accord euh, euh, El Hadj Pape Thiam mu mel nii euh, dañu xool tendance li nga xam ne moo di Dakar Benno mhm. Euh, dooleem gi yëpp euh, xëy na amande bi ñu wax dëgg la yeneen gox goxaan yi wax bokk na ci. Mm. mais li nga xam ne capital bi tey pour ñu ñàkk ko. Mm. mënuñu ko woon gis. Mm. waaye gis nañ ki nga xam ne moo di Diouf Sarr. Euh, que ni dafa ñàkk ci kanamu ki nga xam ne moo di Barthélemy. ville de Dakar bi nga xamante ni mooy maire de Dakar. na noo jàngate la ndax loolu surprise la. waa mais waxuma la sax surprise surprise la bu ànd ak gàcce. ah non lu tax surprise la bu ànd ak gàcce gàcce bu extraordinaire xam nga muy lan Diouf saar en tant que en tant que ministre Diouf Sarr en tant que un compagnonnage du président de la République pendant plus de 12 ans yi fi Macky Sall def yépp Diouf Sarr yi nga ànd ak moom la bëgg a wax tey aujourd'hui Diouf saar moom moo nekkoon maire euh, Yoff jóge fa gars yi yaakaar ne Amadou Ba moo war a nekk candidat wu Benno Bokk au niveau de euh, de la ville de Dakar gars yi ne noonu nañu jël Diouf Sarr def ko mu nekk le candidat de Benno Bokk Yaakaar donc mu war a am deux fonctions yoo xamante ne bii dans la ville de Dakar nekk maire de la ville nekk euh, maire de la commune pare nekk ministre muy trois fonctions yoo xam ne dafa ko naroon a cumuler pour wax la rek euh, la grâce de Dieu pour wan la kon da nga gis ni loolu mooy mooy mooy jafe-jafe bi yow waaw waaw waaw pour wan la rek nit ñi analyse bi ñuy def te état du ci bàyyi xel donc nga gis ne biir yoof am na loo xam ne sax dafa xaw sensible bugguma ci di dugg ndax dafa xaw sensible mooy tey Diouf Sarr étant étant étant maire de Yoff ba dem nag jëloon jël doomu xalifa bi jël ko soxnaam donc mu am espoir am yaakaar ne ak lu mën a xew moom day battre affaire bi mais yàlla ñëw ak dogalam jël un jeune boo xamante ne bii il est parti de rien du tout kenn foogiwu ko woon muy Seydina Issa Laye Samb tey xale bi ñëw jël ci titre yeew yi demee ci bannière yeew yi ba pare yeew ki nga xamante ne bii muy Diouf Sarr wulli ko comme ni mbër yi doon wulle waatee. mais mais mais mais attends comme euh, li li ñu wax noonu. Mhm. Euh, tudd nga ko léegi. Euh, te Diouf Sarr gis nañ taxawaayam. Mhm. ci ci ci taxawaay côté même peut-être ñu xamul biir Yoff mais gis nañ euh, euh, euh, position bi nga xam ne yor na ko mm. ci taxawaay muy ministre de la santé du demee li ni mel mm. donc mu mel ni comme li ngay wax rek yow lu ma déggee sa biir wax mm. dafa mel ni xëy na sanction bi am foofu mooy waruñu ko woon jiital sa gis-gis waaw mais xam nga bien vrai que ne waruñu ko woon jiital secondo mooy sanction bi mooy dañoo sanctionner le président de la république parce que nag particularité wu élection yi mooy peuple bi ñoo waroon a choisir seen ay maire mhm. peuple bi moo waroon a choisir seen ay candidats. mais au au au sein Bokk Yaakaar te n'est pas le cas. au Bokk Yaakaar le président de la République moo choisir ses propres candidats. kon kon daal euh, Bokk Yaakaar ci côté boobu euh, dafa mel ni que am na loo xam ne ñu ci biir euh, malgré que yenn tabb yi ñoom seen biir dafa mel ni daal neexu leen jubawuñ ci seen biir. mais sëñ Mountakha ma wax la benn affaire ne la au sein benn Benno Bokk Yaakaar déjà sanction bi foofu la njëkkee xamul tax ma wax la ko. parce que da ngay gis tey dama la jox exemple suma commune man. man suma commune kii ñuy wax Mayel Thiam Mayel Thiam mooy l' administrateur général de l'APR mm-hmm. ba pare nekk HCCT nekk vice président Ousmane Tanor yàlla ko yàlla yërëm mm-hmm. donc Mayel Thiam background bi mu am. tey aujourd'hui moom mooy meilleur profil boo xamante ni moo waroon nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ak Ginnaaw Rail Sud parce que lu jiitu euh, ñu koy ñu ñuy choisir un autre candidat mhm. Mayel Thiam il a fait beaucoup de choses à Ginnaaw Rail def na dem na ci mouvement de famille dimbali na jeunesse bi na nawet bi jënd na ay moto pompe ndeysaan il a fait du du il a fait du n'importe quoi parce que moom li mu gëmoon te yaakaar ko mooy mhm. amul profil bu ko supérieur biir Ginnaaw Rail mais malheureusement à sa grande surprise moom mhm. bi ñu demee à dernière minute président tranché jox ko beneen jeune boo xamante ne bii kenn ci waa ginnaaw raay musul tëdd gént sax ne kooku war naa ma a nekk candidat. donc nga gis ne ñoom ci seen biir bi président defee choix ñoom aussi dañoo dañoo dañoo ber ay list parallèle pour wan président bi ne ko ñun d' accord ci seen choix. parce que choix yi nga def dafa nekk ay choix yu négatif. Mhm, mhm, mhm. baaxul parce que adopté wul ak réalité yi nga xamante ne bi tey moom moo am ci biir commune yi. d' accord euh, mu mel ni Seydina Issa gis nañu ginnaaw si remporté na ci kaw ki nga xamante ni moo di euh, Diouf Sarr. Mm. lu ñu xaar ci en tant que jeune li nga xaar ci moom. waaw mais euh, li ñuy xaar ci Seydina Issa moom la ñuy xaar ci les autres maires du Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. li ñuy xaar ci moom mooy mu relever le défi. li ñuy xaar ci moom mooy mu bañ a tas yaakaaru waa Yoff li ñuy xaar ci moom mooy état du Sénégal bañ a jël euh, yenn communes yi di ko xeexee yenn maires yi parce que xeex maire yooyu mooy yaa ngi xeex population boobu. tey dafa mel ni alerte ngay bëgg a sànni. non mais mais alerte la parce que tey.